li jëm ci commerçant yi muy ab bataaxal boo xam ne dégg nañ ne dafa war a génn jóge ci préfecture mu war a sàkkal bis yoo xam ne moom la commerçant yi di liggéey ñi nga xam ne jaayuñ lu jëm ci lekk ak bis yoo xam ne ñiy jaay jëm ci lekk moom lañu war a ubbi loolu it jàpp nañ ne contexte bi fi mu toll nii euh, gënul baaxul parce li ñu wax ci moo waral loi bi mooy distanciation sociale waaye ñun am nay proposition yoo xam ne def nañ te lu jiitu muy génn loi bi fekkoon nañu nekkoon ci te jàpp nañ ne bu ñu defee loolu du yàqal kenn ndax ñun commerçant yi dañoo weex du comme ni ma koy waxee jàpp nañ ne bu ñu nekkoon ñu tëju un mois deux mois duñu liggéey te nañ dund dama ne quatre pour cent sénégalais yi Voilà 80 des commerçants sénégalais sont yi comme tout le monde amul ben ndimbal bo xam programme nañ ko jëmale ko ci impact wax na ñepp fu ngeen dégg ñu fay magasins, fay magasin fay ay employé fay millions par mois de charge nga ne jaay mois bi nga ci semaine bi donc mois bi 8 fois te kenn du la ko fayal loolu xel mënu ko nangu te tegoon nañ ay benn dispositif boo xam ne bu fekkoon ne gën nañ ko yaatal gën cee waxtaan ñu ànd ceeg ñun yàlla xam na ne propagation virus bi mën naa gaaw a taxaw ndax ñun loolu def nañ ci ay waxtaan yu bëree bëri lu jiitu lii te mooy fexe ba magasin bu nekk am kit de lavage yooyu ñu exiger ñuy takk masque di laal gel ba ñu nuyuwante magasin yi ñu koy ñu koy réguler ba nga xam ne ñuy dugg du bari suñ ko defoon mën nañoo dagg la chaîne de propagation te du tee ñu liggéey wala boog à la limite ñu liggéey lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ñu nettoyer désinfecter bu lundi ñu commencé wat waaye xëy xëy na du ngeen liggéey ñaari fan rek ngeen di liggéey nit ki nag boo ko daan bàyyi si da nga ko daan jàppal ci dara.